waaw sëñ Dame Seye. sëñ Dame waaw waaw ñu ngi lay sant. waaw waaw ñu ngi sant Basirou Diouf ca Touba. moom it euh, nekkoon fii ci euh, Kaolack daan ñu dimbali lool ci bande sëñ Sam yi. Uh-huh. nekkoon ci marché central Kaolack woote na fi léegi euh, ak sëñ Abdou Karim Kane ca Kasnaaj. Uh-huh. Abdou Khader Diallo nekk fii ci Kaolack ci société générale bu banque. Uh-huh. ak sëñ Sakou Ndaw nekk ca Gossas ñoom ñëpp am nañ mbégte lool ci waxtaan wi. mbokk yi nag ñu ngi jokk it ak sëñ Dame Seye nekk ca Dakar. sëñ Dame foo nekkee noonu ci Dakar. waaw maa ngi si si marché Ngelaw. marché Ngelaw. waaw ñu nekk ci wettaayu màgg. ndax mel na ni xalu tabaabir yoo xam ne dañoo réer ci lënd mu wax set. comme bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nelawee. saxaaba yi njaaxle boobu ñu amoon. tey ñëwaat na ci donga yi nga xam ne dañoo bëgg dund ci lislaam yaakaar Serigne Touba ak gaa yu baax yi. Euh, ndax Serigne Sam ci nekkam bi liggéey na ci diine liggéey boo xam ne allo yaa ngi may dégg. waaw waaw waaw léegi liggéey na ci diine liggéey boo xam ne kenn mënu koo fàtte ñu ngi rafetlu bu baax yéen seen taxawaay ci loolu. moo tax keroog bi nga xam ne nii nelaw na. te ñu dégg ko moo tax damaa wax ne ci yàlla. mi mbetteel ci àdduna ak maa waar. ku deeti leeral diine ji ci wii waar. ku wér di laajal masala gaa yi jëngu te daa wer-weri bàyyi sama xam gaa yu baax yi daa julli ko moo yofoon moo daa wax lu wóor te du ware kee daa dawloo mboolem jotaayu gaa yi daa ware bàyyi saama daa wax yàlla ak Moustapha lu wér ba nu mos ci aslaf ak ci seen jëwriñ ji lu wér euh, waaye xaw naa gudd waaye ci nekkam bi mhm. euh, am na lu ñu defoon ci moom euh, mbokki taalibe yi bëgg ci lool jàng nañ ko ci kanamam booba dañoo waxoon ne murit mooy ki jëm ci yàlla moo tax ñu ne murit soo bëggee xam yoonu rijaalu laahi déglu sëriñ saam te jëfe li wàccillaahi soo bëggee ràññe sari atoog àqiqatu nootool ak bàyyi saam saam iraadatu saama nu tax a ràññe sari atoog àqiqatu soobu yoonu ba seey ci ngirum àqiqatu boo mosee sukkar xam lu mu saf doo laam-laame te ku mos xam ne bàyyi saam mi géej la mu war ku bëgg àgg ci yàlla da ngay soobu ngerum tasuf rëcëri jaale soobu baagam yëf sa jihaadu naf si wuteeg sa bakkan dëddu adduna mooy tax a doog yoon wa ndem sa na dul ko nag saam du ma jar dara ci àdduna ki lee ma jaral di raam ne moo ma tax a dëddu àdduna ngir ku la wan yàlla sa borom mooy kala noppal te ku la tax a bëgg àdduna képp mooy kala sonal te àddunaay géej gu naxtal ndam ku ko sóoboot yàgg yàgg doo ci am ndam bëgg a waxu baaxam taxul ma jéem a waxi maqaamaam ne mbirum bàyyi saam borom ma ko lëmb bisub xiyaamaam bëgg a waxu baaxam it taxul ma bari wax ne lu ma wax wax ba ca lu ma ta wax ñàkk a gis jëmmam ja nag taxul nga umpale jikkoom soo gisul jëmmam it ay waxam tegtal ay jikkoom tey waxam weesul kitaabullaahi wala addisu ak waxi Cheikh Bamba mbër ma lii du ko weesu te doo ko gis ba na wax ak njaam jëfam ja sore na te ku xam li jaadu xam ne seen i mbir nuroo na bàyyi saam lu dul yàlla suufu ko ku dul rasool ñoru ko te melawu dul Seex Bàmba ak maam Seex ñoru ko te gëm na yàlla bu wóor boole ko sopp rasulullaahi te doy loo Seex Bàmba maam Seex lillaahi bàyyi saam yi di ko la booleeg dalli loolu alxuraanullaahi ba am maqaama mbokk ci rijaalullaahi ku ko génne ci rijaale ana foo koy teg ne moom àndaar jokk nag te jurul ci rijaale di jot ñu ñaanaloon ko yàlla na ko bur yàlla jox fan naan noohi ni bi jaay Seex Murtadaa wa soxna may te jox ko tawhid ibrahima xalilullahi rafaat la ko jullit Moussa kalamullahi te jox ko dëggalu ko Abubakar Sadiq ba amin bi jaay maam Cheikh Murid Saarix ba te jox ko du ruuxullahi ak noppi Cheikh Mbacke Sambar Malillahi te jox ko ngëneeli mboolem rijaal bu mas a ñëw jamono si saahiri nu baatini te ma sëkk borom jamono jamono ñu wax ak yéen ñu ngi ciy am lu war a mat juróom-ñetti téeméeri kaset ak ñeent fukk ak juróom yoo xam ne benn bokk ci ak moromam juróom-ñetti mhm. ba léegi mhm. suñu dimbali na ba am nan ko bu fekkee bu mas a arrêté la li raw nag bari na lool ndax euh, mën nañ ne baxaru lu loom moo dem muy géej goo xam ne dafa feesoon ak xam-xam ay karku sakku na yoo xam ne euh, rawatina rek euh, téere bi ñuy wax njuñ jaaj mën naa leen ci dëgtal tuuti biñ ko ko laajee te moolaguñ ko woon ci sëñ Moussa def ko ndax sëriñ dafa bokk ci waykat yu mag yi nga xam ne dafa ci école sëñ Bay Jaxate ñoom ak sëñ Jaara Mbay way lu am solo ci sëriñ bi te jamono yi nga xam ne Baye Sam ñoom ñu ngi jàng téere yu bari boobu moo la guñ ko am wala fal bu ñu daan wax njóoñ daaj nag na déglu ma delloo ci fent ab daaj la sëriñ Moussa Ka waxoon ba saay sëdi baatin jullee gënu maaj damay wëlbati mboolem way yi ni daan ba feem yépp di baatin bu jeex di seetaan noonu la way yu tàmbale woon fan yi ñu toll lañ ko móol lu toll ci fukki fan keroog bi ñu ko jotee def na ma feebaroon naa waaye tane naa ndax way juróom benn fukki at ak nangam ba may jàng ca euh, kokki ca daara ja waaw booba jamono yi laa ko mokkaloon ba sëñ Saliou moom mu ngeen waa tey hmm. yàlla na ko suñu borom yàggal moom it euh, ku amoon mbég la moom da way yu ñu def yëpp moo ko njëkk hmm. ndax waxoon na ne moom yaa taalibal xilmi laa tarxal ilal hindi wala li sinin wala samin li si sandi in kaana fi baynina sàmbay xawaa rutaban wa soxdadan watu xan jeune baawakal xindi wax na dëgg ndax ku sàkku xam-xam jërul ngay dem siin ak saam li feeg mi ngi fi boo ko laajoon mu léegi nag lim jóge na fi waaye waxam duduk fay fi ba àdduna tukki moom wala fal ñu wax njunjaat lii la ci waxoon ci jamono yooya ñu dégg sa leen kàddoom jërë waaye wax ne waa kañ nekkul ci de boobu ngay bool bu bët yee na rayit xol ba moom ma ngay xool yee na rayit rooga dem aras moom xanaa war na bu raax mbaa mu war ci ay suuf da lay laat ko tee dem ci tey yi diiwaan ca passé ngi ñu sàkkal naan laqad abba rijaali xayba kama maasa sharaban xayba mu teg jooy ñu borom taar bi de semmal na saaru mbargaan tabaarak ma jàngal ko saaru furqaan te semmal na ñu daan way at ci daymaan te jaaxal na ñu daan way ajam ci soo daan xayaaram yi fi daan way nga nee ne adnaan te buusiiri wa kaabin ngéwal ba xassaan bu tawreetu ñëwaatoon nga mel ne Muusa bu injiili ñëwaatoon nga far de Isa sa géejul xikamit raw na géeji Luqmaan sa waxtaanu xadiis it sewal na Nuxmaan xasaayit yi nga taalif mëneefu koo mool ajaayib yi nga feneel mëneefu koo jël sa téere xasidaay booti lawhi borom kun di la gàgganti bamba yaa xees ci mulkeeg malakoot ngay fanaan a gàmbaal malaaka jabaroon far la war di sabbal te koo tax ni sa loru yi toxal ko busra mu tàggoog loru duniyaa kazaaka oxra di wéy di wéy day wéy guddi na waaw ndeysaan loolu mhm. moo ko daan def ci diine mhm. lu mu yàgg a def kon maanaam bu fekkoon ne kenn nit la koo xam ne maanaam man naa wecc mhm. ay junni junni nit ndax keroog ku teew bañ koy denc bu fekkoon ne maanaam machine la bu ñu mën a weccatu ko kon ay junni junni daañu ko demal mu liggéeyal diine waaye nag ñu ngi ñaan suñu borom taas na ci barkeem te bàyyi na fi ban man am ngërëmam ndax ku am ngërëmam am nga ngërëmal suñu borom bokk na ci liggéey yu rafet yi mu daan def euh, téere yi nga xam ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bind na ko euh, defoon ko ci diine téere yooyu ci ndigal la Cheikh Abdou Lahad sëñ Sam traduire na ci loo xam ne juróom yam njëkk a def rek sëñ Abdou Lahad dana ko am nga liggéeyu sëriñ Tuubaa buñ nangu te dolliwaat na ci lu man ñeent fukk ak nangam loolu kon muy jëf ju rëy joo xam ne def na ko ci diine mbooleem ku daan dégluy bandam boo ci amee fukk képp mën ngaa tey ñetti guddi di waxtaan te lépp ci moom nga ko jële euh, ñu ngi koy sant di ñaan suñu borom yokk leeram ah, njabootam suñu borom aar leen waaw ah, am nañ mbégte ci woote bi mhm. ñu bëggoon nag laaj noonu nan def ba am kaset yooyu yëpp kaset yi nag ah, suñu borom moonu teel a gindi ci moom ndax nun suñu way jur euh, ki nga xam ne mooy suñu way jur mhm. baaram daf daan ànd ak seen tubaab di bind ay kaamil kon li ñu tuddee doon ñëpp sëriñ Saam moo leen may ndam ndax léegi jamono toll na foo xam ne nit ñi leen gën a yitteel wute na lool ak li nga xam ne moom la sëriñ Saam nekkoon ku yàlla nar a dimbali rek ci baaxu suñu borom mooy waral nga xam loolu nun nag sëñ Basiru min yaakaar yàlla dafa dogal xam-xam ñor ko ñor goo xam ne ku gëm ko te muy sa wati la war ngaa góor te li mu doon def moom sëriñ Saam fardu kifaaya la bu ko jullit ñëpp defu doon te kenn def ko moom te ñu la ko rek mu daal di wàcc ñi des buñ demee ba kenn xam leetu diine nag ñëpp am bàkkaar. waaw kase yi ci yan fànn la màcc. kase di nag euh, maanaam mi ngi jëm ci lépp rek ndax lépp luñ laaj ci diine rek euh, am na kase yoo xam ne da koo def am na taw tawhid uh-huh. nit ki naka lay wéetale yàlla. Uh-huh. muy téere bu mag boo xam ne Cheikh Ahmad Bamba radiyallaahu def na ko. Uh-huh. def na ci ay téere ak taw ak tawhid euh, bari na yoo xam ne sax téere yu raar yoo xam ne ni bëreetut. yooyu yëpp sëriñ Saam def na ko xasida daal lépp loo xam ne ni man naa jëriñ nit ci dundu doomu aadama mi loolu ci loolu bu ne rek def na ci ay kaset dafa tolloog tax ñi ko daan mën a laaj dëgg-dëgg ñoo ko jegewut woon ba tax na kon waaye kon lu gën a bari dana feeñ waaye nag yàgg naa def ay kaset yu bari yoo xam ne euh, suñu borom dimbali nañu ba danoo jaayante woon ak Sëriñ Tuubaa fépp fu mu waxtaane ci biir réew mi rek ñu dem fa bu dem bitim réew mu andil na kaset waaw nah, ndax cassette eh, yooyu moom fii ci réew mi rek la am dem na ba bitim réew. dem na nag eh, ba bitim réew ndax am na cassette eh, yoo xam ne mi ngi ko defee woon ci jamonoy 1994 def na Espagne am na bande mi ngi UNESCO 1977 mi ngi ko France moom am jàngaleem daal eggoon na ci àdduna bépp sëñ Matulaam mi nga xam ne la daan di doomi si Ahmad Bamba ñoom ñaar suñu borom daf leen jubale woon sëriñ Sam daal géeju xam-xam la woon boo xam ne képp fi mos a ñëw rek jariñu la ci xam-xam waaw moom sax mos nañoo seewel bi mhm. suñu yitte bu say wax ay waxtaanam mhm. eh, nañ mën nañ la digge si waaye ndax ci wàllu bande cassette ndax ci wàllu vidéo eh, am na lu ngeen ci amoon waaw cassette vidéo yi nag bu dee ci bitim réew mi moom yu gën a bari daañu ko am yeneen dëkk yi ci Sénégal nag da ca am dëkk yoo xam ne ñàkk courant tax na buñ ca daan dem léeg-léeg dañuy jël appareil yi ñu arrêté rek ci rajo duñ ko filmé waaye nag yu gën a bari moom teew na waaw ñu lay sant bu baax sëñ Dame léegi bande yi mu defee Espagne bari na yi mu defee Italie bari na Amérique moom 89 ba léegi bande bu mu dafa def am nañ ko gàmm it 86 la tàmbali ba tubaarkàlla bande yu bare bari suñu borom dajale na ko euh, dimbali nu ci daal nun am nañ ko bu baax a baax a baax droit de terre bi dafa waxoon ne mën nañu koo jéggal ndax moom li ko ñoroon mooy xam-xam tas donte xamuñu ne moo ko wax sax nit ñi xam rek loolu am na yu ma leen ci mën a tegal tuuti moom it bu fekkee ne émission bi jeexagul. waaw euh, sëñ Saliou daf laa bëggoon a nuyu. waaw bala ñoo. waaw salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay bu baax. ñu ngi leen di siyaare. rafetlu woote. waaw moom day bu baax. waaw ñu ngi leen koy jaal de. waaw waaw ñu nit de ñu ngi la koy jaal. waaw ndax yow. suñu sa jaal na suñu borom yokk leeram sa xarit la woon yow sant saaf na ci euh, barke waaw ne moom day wax dëgg yàlla ñëw na fi yoon yoon mhm. te ku néewoon ak jot la mhm. waaw béréb bi ñëw na fi ay yoon lii la daan wax sax ndeysaan mhm. euh, ci jamono yi nga xam ne daan nañ ko laaj band yi day wax ne am na fii ci fii ci man waaw waaw ndax maa ngi maa ngi fàttaliku foog naa foog naa bi muy mujjee woo Pikine waaw di ma wax bis bi mu mujjee ñu foofu ñu sa place waaw dafa doon ma wax naan doon ma wax ne man euh, ñëw na mu gis nit ku xër waaw te àggul ci li ma xëre daal waaw ndeysaan waaw comme ñëpp xam nañ ne suñu sàmm moom uh-huh. daawul yëkkati tànkam waaw jëme ko fu daray àdduna nekk waaw moom wax dëgg yàlla sa place bi fi mu nekk ci marché Ngelaw li muy ruqe ruqe uh-huh. nenn sa place boobu moo daan tax mu yëkkati tànkam ñëw fa waaw kon nga daal di gis ne uh-huh. liggéey bi muy liggéey ci lislaam bëgg gi mu bëgg mu tasaaroo ñor jëm la ñor loolu dong mu waraloon mu daan yëkkati ab tànkam waaw comme comme noonu ko Amadou Lamine doon waxee sax Amadou Lamine. Uh-huh. Euh, moom kaset yi. Uh-huh. def na tem yoo xam ne. Uh-huh. l'islam ak ndaw ñi. def na thème mu tawhid. def na xam-xamu tasuf. kaset yi daal dafa dajale lépp loo xam ne ni rek nit mën na ko ki am na boo xam ne almuawana maanaam muy dimbalante. defoon na ko ci 1989. kaset yooyu am na njëriñ lool maanaam lépp loo xam ne ni mi ngi jëm ci dundu doomu aadama mu mën ko jëriñoo ci adduna wala ci àllaaxira loolu bàyyi saam waxtaan na ci. kon nag sëñ Dame. waaw waaw ñu ngi am dëkk lool dafa naa ni euh, sëñ am na lu mu bëggoon a laaj sëñ Dame Samb. Ah, waaw. kon nag. Euh, ah, waaw waaw. waaw kon ñu ñëw si. waaw. waaw sëñ Dame Seye. waaw euh, man la Dame Samb. waaw. doomu El Hadj Babacar Samb. waaw xam naa la loolu gisee. waaw ci nganuk sëñ Samb gi ñu ñëwee ci kër gi. ci kër gi waaw. Ah, man nak dama lay sant di la gërëm ndax dama rafetul sa liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci sëñ sàmm lii ngay def di vulgariser ay kasetam nekk na lu baax ah. nekk na loo xam ne liggéey bu rafet la li may wax rek mooy ci leen gën a soññ ci liggéey boobu ndax kat yéen am ngeenum saf ni ngeen ci gën a góorgóorlu ndax lii suñ sàmm bàyyi dafa nekk loo xam ne bibliothèque la bu ma soñoon tey jii kaset yi yépp ñu def ko ay pré enregistré wallahi gannaaw kasit yi jege na mille mhm. na ngeen dajale mhm. def ko ay pré enregistré si ko waaw ngeen kër ko rafetal mhm. ba nga xam ne mbokk taalib yépp dinañ ci mën a jot wallahi ndax kasit yi lu am jot la lu am solo la ci dunduk doomu aadama wallahi waaw ñoo ngi lay sant bu baax waaw di gën a rafetlu sa liggéey di sant tamit bépp conférencier boo xam ne yaa ngi gëstu si cheikh ahmadou bamba ngeen gën cee góorgóor moom euh, kaset bi ma leen doon bëgg a dégtal tuuti ni état la ko defee nga xam ne kon bàyyi saam dundam gépp da ko joxoon l'islam te xamul ci nan lay deewee ci wan melo tray ban lay nekk ci ba kanamam war naa delloo ci xelam ci yu bari te dund ba noppi dund gi li ci ëpp dik perte lu jaram moo yoon la yàlla na ko suñu borom fegal te nit àdduna ci li mu gàtt gàtt li soxla yi bari bari yi bari bari li dund di gàtt gàtt ci la lay fàggoo sunu ëllëg te ku fekkoon tamit yàlla may na la ngay yor ëllëg na muy demee dootoo ñëw benn minute ci sa dund nga sànq ko fi mu toll nag seytaane dafa bari doole bëgg-bëggi àdduna bari nit bari jaar-jaar ak fu muy dugg ak nu muy toppatoo ak nu muy ittewoo ba dañuy fàtte faw rek am njëriñ gi jamono am njëriñ suñ dund gi ne daanaka dara xaju ci ñu ne wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu fu ñuy waxtaane gaañu baax ñi yërmande yàlla day wàcc rawatina fu ñuy waxtaane yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala ndax moom mooy bu fi ñëwee fi jóge lu xet ñi rek def doon liggéey ndax lu ko musal lu ko rawale lu ko am may li mu bëgg am na ko ba noppi waaye yërëm jaam ñi rek moo tax mu ne zimaamul wara afri la dallaay fi yadi ba suñu borom yëkkatee nosu jaam ñi teg ko ci loxoom it doyloowul kàttan ki ko yàlla may nga xam ne yënuwul fenn fu mu toll daf daan waare di fàttali nit ñi seen di ko bind di ko wax kon dégg nga loolu. waaw. Euh, li sëñ bi daan bëgg. Mm-hmm. ci la ne moom ba wuy ji fi suñu borom. Mm-hmm. te alxuraan wax na nit yàlla yooyu buñ fi jógee noo leen gisul waaye ñoom jóge wuñ fi. kon nag sëñ Sam. waaw sëñ Sam ñu wax ci moom ba gannaaw suba. Mm-hmm. asakay asakay li xam ti moom du jeex. te moom mas na maa dégg ci ñu boppam mu wax ne bu xamoon sëñ tubaab fukk ak ñaar ba mu dalee waxtaan ba léegi ci ñaari la ne. xam nga loolu la loolu dafa dajale woon mboolem nitu yàlla ku yàlla mas a may rek mm. boo ko ci laajee la waxee sa xol seet ngi am ñu nga wootee mm. jël sa téléphone mm. ak ñu dégtal di lépp daal nekk loo xam ni rafetlu nañ ko lool ak ci daal li may dénk di ko dénk képp koo xam ne ab mooy ku jàng ci réew war a war réew ma te bu ñëpp meloon ne sëñ Saam loolu moom mënatu la nekk ndax ñëpp mënuñoo mel waa bu kenn ku ne góorgóorloo roy ca moom lam fi ba nu xam ko daal bu baabaat dana tax maanaam la doon bëgg lépp suñu borom gën ko sottal ñu jokko jokkoonte waan maanaam ñun ñëpp nga xam ne ni xamante nu mu fas yéena xamante kenn ku ne kaset bi nga yor ko nga fexe ko yaatal ba mu tas loolu daal moo doon sama xalaat jërëjëf jërëjëf kon nag euh, sëñ Saliou Sow ñoo bokk déglu loolu euh, ci euh, sa takk ndax léegi wax